ñom la maladie bi ñëk dal bi lolu weesoo nak service de santé ak ministère des finances ak sama ministère dajé nan ñu estimer plan bi nga xamné mom moom tuddé plans plan de contingence nga xamné comme mbir mi dal nañu té mu ngi doon yokku té aussi xam nañ conséquences yi euh, def nu nara a dafa nar metti ñu jël décision de dégager un budget de 64 milliards Nous euh, ñu dit que sax démb conseil des ministres validé euh, pour mun en charge le euh, fléau bi maladie bi maladie maladie yi anticiper le a territoire national du biir Sénégal Je naa que sax sama ministre de la santé dina ci war a budget bobu nak état du Sénégal mon koy financé mais surtout ak partenaire au développement ñi nga déjà manifesté wu nous te ngi boucler nañ financement pour que ñu puissions jël vraiment prise en charge suñu dëkk mëna gëna gën fagaru lu jëm ci lolu xam ngeen né tam crise bu melni comme nous ma ko waxee si ben day affecter économie day affecter économie ci walu yu bari ñi nga xam ne ci transport aérien aéroport bi Air Sénégal plateforme ñi nekk ci tourisme hôtel yi yenn restaurant yi commerce et même sax soo moytul transport aussi terrestre ak ak yenn secteur de économie bi loolu def leen di nar a xaw a gaañ comme nu mu amee ay effet ci àdduna bi yëpp euh, ba tax na sax commission économique africaine euh, ràññee na seede na économie Afrique nu mu doon doxee croissance bi dina wàcc dina wàññeeku euh, ba tax na nag pour mun a

dina leen frappé dina leen dal euh, fonds boobu nag comme ni ma ko waxee euh, taille bi wala euh, fonds yi ci mën a am mu dépendre ci lu bari mu gën dépendre nag ci enquête bi nga xam ne sunu ay service service ministère sectoriel yi ak waxtaan bi na nar am ak secteur privé mooy déterminer lan mooy li nga xam ne moom impact total bi ñu déterminer aussi

dinañ xam ñaata la plus tard dinañ ko xam également contribution partenaire au développement mais également contribution ay entreprises ci secteur privé mais également ak ay fondation wala ay dons ay nit yoo xam ne vraiment bëgg nañ jàppale Sénégal jàppale sunu économie euh, d'ailleurs sax dinañ ci gën a waxtaan ak secteur privé euh, ci fan yi di ñëw suba la ñuy commencer waxtaan ak secteur privé mais aussi ak nos partenaires yi nga xam euh, ñoo nekk fii ci Sénégal ak ci bitum réew euh, altine nag amoon na réunion conseil des ministres de l'UEMOA maag sama naataango Ablaye Daoudou Diallo réunion la vidéoconférence donc ministres yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, juróom-ñetti dëkk UEMOA waxtaanoon na lundi dinañ waxtaanat encore defe naa ni sax suba suba ci ngoon ñu xool institution union bi yan mesure lañ war a mën a jël ndax jàppale suñu économie euh, mesure yooyu banque centrale mën nako ko jël ndax jàppale banque yi nga xamné ño nek ci union bi ndax banque yi gëna mëna am ay outils ñu yombalal leen mbir mi ndax ñoom ñu mëna a secteur yi nga xamné ño nek en difficulté donc loolu dinañ ci euh commission de l'UEMOA aussi amna lu mu wara mëna def directement sous forme de don pour pays yi nga xamné dañ leen affecté té Sénégal bok ci banque ouest africaine de développement bi nga xamné moy banque Umoa bi nga xam ne financement la en prêt mais en franc CFA ñoom it war ci am donc den waxtaan ci loolu suba den ci delluwaat euh, allah léegi loolu daal loolu moo nekkoon li nga xam ne mooy sa euh, euh, première mesure bu président jël fonds boobu nag ñu ngi ci liggéey déjà dinañ préparer décret bi xool aussi son fonctionnement def ko ci ay anam yu yu leer yoo xam ñi ñoo ko ñoo la affecté dina wax ay critères lepp leer nañ euh, naka la fond bobu di mëna a intervenir ci ñi nga xamné ñom la mbir mi dal donc loolu dinañ ci wat gën ci waxtaan ak yeen euh, mën ko euh, xamal opérateur yépp ñu xam naka la loolu mëna doxé su loolu wéso tam président yebal nañu ñu créer benn comité boo xam ne ay membres département ministériel la sama ministère ñi nekk ministère de l'industrie finance ak budget waa commerce tourisme transport secteur yi nga xam ne mbir mi dina leen laal kulli haalim ak aussi secteur privé ak waa banque centrale parce que foog banque yi jàppale aussi te banque centrale moo leen yilif foog tam ñu waxtaan ak banque centrale ndax ñu mun a ay jël ay matukaay pour mën a jàppale banque yi donc jàppale aussi euh, suñu secteur privé donc comité boobu dina commencé ay liggéeyam nu mu gën a gaawee comme ni ma ko waxee rek suba dinañ commencé discussion yi ak secteur privé partenaires yi ak ñëpp ñi nga xam ne war nañ waxtaan ak ñoom euh, pour que mbir mi nekk ay décisions yoo xam ne c'est concerté comme ni ñu ko président la bi santé ñu discuter comme ça mesures yi nekk ay mesures yoo xam ne ñëpp koy partagé ñu jéem a xool nag naka la ñuy def euh, ba mbir mi impact négatif bu muy am ci suñu économie ñu mun ko atténuer ñu mun ko wàññi loolu daal moo nekkoon euh, li ma bëggoon partage ak yéen euh, tey ci ngoon donc euh, ñu